ñun ndaw aar parti bi parti APR tey ñoo daje woon euh, di jooytu ak di naqarlu situation bi nga xamante si nii moom la parti bi di dundee ba bëgg laalaale benn Bokk Yaakaar parce que dañoo dem élection référendum président Macky Sall wax ne euh, communes yi ci Sénégal yëpp na fa maire yi mujj a gagné jiite. bi ñu defee lool ñu d'accord ànd ak maire bi fi nekk muy coordonné élection yi mais bi ñu ci jógee ba léegi gis nañ ne toog évaluer élection yi ñun mënuñu koo am. def na émission wax na ni moom du def évaluation ndax xamu ko te teewul mi nga wàcc di liggéey pour préparer local 2019. yi ñu jëm donc ñun ñuy wax ni ñi ngi woo ministre chargé des collectivités locales muy Abdoulaye Diouf Sarr mu ñëw saytu ñu fii si bu parce que gis nañu bu ñu demee élection taux de participation très faible la am taux de participation boobu ñu am li nga waral mooy bi diggante 2012 2013 mi ngi woon ci 8000 habitants 2013 ak 2014 yóbbu nañ ko pili de 12000 habitants Madame Timi manam n'est agnate, fukki junni fukki junni nit ak ak lu dañ ko ay transfert la yo xam dañ a ci yeneen dëkk ñu ñëw fi jour élection locale dëkk bi melni Magal Touba auto yu dugg ak ñu pour élire ben maire. mën ko dello akam ak ba nga ñu une si bu ñu kenn référendum bi passé taux de participation dafa faible seulement ña ñu jël jëlee leen ca yeneen dëkk ay Bawol ak Ziguinchor ak yeneen ak yeneen pour bëggoon falu ñoom ñoo ñëwaatul keroog parce dama ne kaa leen fal ma bokkul ak kaa dérangement ba mu leen jaraloon ak déplacement bi jaralatu ko kon foo fichier ngeexoox ñu delloo ko na meloon segg ko seggaat ko bàyyi waa ngeexoox ñu moom seen fichier nekk ci seen fichier di fi voté bu loolu weesoo bañ ca jógee dañ ne ñun nañ évaluer ñun APR ak coalition bi ñu àndaloon pour xool résultat yi force yi ñu am déclaration de presse bi mu mujjee def néna mom xamul évaluation du def évaluation té mom moko ko coordonné woon li xam moy mom nan lay def ba gagné yenen élection parce que ba muy gagné local yi gisuñu won mais ñun aussi dañ koy wax né ba ñuy fal président de la république Macky Sall bobu mom mi ngi yor ay moyens nek ci terrain bi di ñu contre nekk suñu opposant bu farouche jël ay moyens tour ko ci dëgg bi lu ñaaw lu ne mu wax ko Macky Sall kon bu nee ba Macky Sall falu mom aussi bu faloo kon buñ ko reproché wul lool mom bu ñu reproché lool la preuve moy ba nga xamé né local euh, euh, référendum bi jall na ba fi ma taxaw di wax ak yow mi ngi ci terrain bi parce que xam na ne ngeexoox faluñu ko won mu ngi ci terrain bi tey tenir ay déclaration djel PUDC bi nga xamné ne Souleymane Jules Diop moo ko muy Macky Sall fi mi dëkk yi muy dugal courant difa fa ndox difa fa forage ak ay poste de santé diko djel diko politiquer au détriment de Benno Bokk yakar au détriment même de l'APR pour djema défar local 2014 localu 2019 parce que déclaration bi mu mujjé def ci presse bi mu mujjé wax néna mom bu démé local yi di ñëw dana wone dooleem parce que dana jog and ak ñam andalon donc kon koku wan na waa Benno Bokk yakar ne man bu ngeen ma topé man top ma len am fuma tek sama bëtt pour jëm fa kon wa Benno Bokk yaakaar bu ñu toogee di ko xaar it moom toogul di leen xaar